yombalal euh, faju ñi nga xam ni dañoo am insuffisance rénale fondation bu port autonome bu ndakaaru ànd ceek jëwriñ bi ñu dénk wàll wér yaram amal nañu ab camp ci maatam ci bile doxalin fondation bu port autonome de Dakar fexe ba gën a yombalal malade yi. dañuy ñëw fekk si suñu chirurgiens yi fi nekkee suñu médecins yi jàppale leen renforcer seen compétence de telle sorte ëllëg soo amee ñu soxla fistule ñu bañ leen di yóbbootu Dakar mais beneen bi mooy malade yi nga xam ne dañ daan sonn voyage guddi gi pour bénéficier fistule boobu tey ñu mën a toog sur place ñu defal leen loolu. ci centre hospitalier bi ñaar fukk ak ñaari patient la ñu dal di defaral fistule artério-veineuse ngir amal dialyse bile opération mënta ñàkk ci gis-gisu professeur Maguette Guèye. waaw chirurgie boobu bi ñuy def nii moom mooy fistule artério-veineuse. fistule artério-veineuse euh, si wàllu technique dañuy boole ñaari sititu deret euh, benn sitit bi bu deret bi si cër yi benn mooy bi delloo deret bi si xol bi donc ñaari sitit la ñuy boole loolu mooy fistule artério-veineuse day tax benn sitit bi li ñuy tuddee veine mu gën a yaatu gën a débit bi gën a yokk mooy li muy joxe si deret te nañ opérer fukki nit ak benn donc suba tamit nañ defaat fukki nit ak benn donc muy doon ñaar fukki nit ak ñaar. Mouhamadou Sy moom itam ci la bokk moom nekk ne lu ni mel jàppale na ko bu baax tax muy jaajëfal ñi ko jàppale. jiitu mu da ko weltaare parce que fisinayo moom kala di toy wonti donc gis rek daa kontaan trop parce que affaire bi soo nekkoon Dakar lu nga koy def dem ko kii quoi da nga koy am problème pour déplacement. uteeg moom sëñ bi am fanweeri at ak juróom benn moom opéré nañu ko ba noppi. moom nag dafa dal di dakkal liggéeyam ndax bile feebar ba tax na xam na njëriñu bu baax a baax bile dimbal. dañoo waroon déplacé wu dem ba Dakar pour outil fistule bi puisque à Dakar rang bu métti moo fa nekk yéen nag jël ngeen inici initiative bu baax ngeen déplacé wu ñëw indil ñu ay chirurgien ak euh, accompagné d'un professeur mu ñu defal fistule bi gratuitement ñoo ngi leen di jaajëfal ci loolu dañoo kontaan rek. kontaan rek vraiment. camp bi nag dañu ko amal ci région Saint-Louis ak Matam foofee nga xam ne lu toll ci juróom benn fukki patient la ñu daal di fàcc loolee fexe rek gën a oyofal liste d'attente yi nga xam ne moo nekk Ndakaaru waaye fexe tam ba yile malade gën a jege ak ñi leen di fàcc. ñoo ngi def euh, région de Saint-Louis def nañ fa foofu euh, région de Saint def nañ fa fukk ak juróom-ñaar patients yoo xam ne ñoom ñoo jëlisee foofu bu ñu ñëwee euh, Ndioum def nañu fa ñaar fukk ak ñett. Matam mu nga xam te ne moo boole maatam Agnam parce que région de Matam ñaari centre de dialyse am mooy à ak fii si maatam fii dañ def nañ fukki jëm ñett ñi xam ne ñu leen dialysé te am ñoon fi si ATV na ñu lu jëm nag ci outil bi am ci bile opération ak yoon yi ñuy amalee dialyse professeur Magaye Guèye di xamle ne bile yoon moo tax ba. wopp gi du am ay infection li mu xamle nag mooy ne am na yeneen yoon yu ci mel ni cathéter simple cathéter tunnelisé waaye fistule artério-veineuse bi moom moo gën ndax nag mooy tax malaat bi mën a amal dundin bu